Serigne Touba nag noonu yonent bi sàkkoo bu nekk xaadimam Serigne Touba it noonu la sàkkoo maam Thierno féete ko fi mu ko féete nga xam ne loolu dangay gis ne Serigne Touba bi ko suñ borom joxe liggéey bu rëy bi won ko ko ndax xam ngeen ne bokk na ci awliya ullah yi nga xam ne teel nañoo xam wala suñ borom umbil na leen kiiraay yi bañ xam kii moom jamono Cheikh Omar Fouti Tall la bokkoon ñu suñ borom mayeen taw féexi ñu xam kii moom jamono ëllëg ci la bokk jamono jooju nag fekk na Serigne Touba moom namoon dem ca sawu jant ngir yóbbaale li mu yor waaye taw féex moo di way juróomu selloo junjoon na ko ci soxna Faty sa mbir loola it boo demee da fekk Serigne Moussa Ka dinu wax di borom daaru di feeñ jamono ca Poroxaan muy bii ak bi mu feeñee ak jamono bi muy feeñ xaw xew-xew bi mu dajeel Serigne Moussa Ka dafa wax ne ca ca ama sharain la ñëw ci dunia nee leen sunuy nopp bi diw ni sun ya fukki fan juróom ci weeru gammu di alxames la gay ñëw di yëmmu keroog la Cheikh Bamba mu mag ma faatu maam Balla ay shafaatu ak ma laatu bis ba mu adduna daal di tàkku la Cheikh Bamba xam ne am na la doon sàkku maanaam kon bi maam na feeñe jamono ba tàkku yëkkati baatam nee na la Serigne Touba xam ne am na doon sàkku mooy fekkoon na Cheikh Bamba di ñaan buur yàlla jàmbaar ju askanoo ci Mbàkke Balla fekkoon na Serigne Touba di ñaan yàlla. jambar jo xam lay bayiko ci Mbàkke Bal mune yor yor di di khamis la feeñ fa poroxaan yor yor di khamis da tabbi fil jinan bis bam juddo ba takku ser batam ba Cheikh Bamba da di ko ak baayam ba keroog la maam Mor ante selina pamba, Cheikh Bamba sa ñaan da nangu na yor yalla manam maanaam bi borom dalu mo ko feeñee rek ba sëñ Touba ak sëñ Mor Anta ñoo daje ci néeg soxna Faye Tisa mu ne ko santal yàlla ki le mooy yor yan xam naa sooy doonay rasulullahi mooy sam Aliyu maa Omar billahi su Bamba doon Moussa mu dim aaroona seeni mbir ak yooyee ni mbir niroona nee na keroog alliwa doon jàngee la fa taxaw ca kaw lu rëy di fànn alliwa ji sëñ Touba yoroon bi borom daru di feeñ jamono نانا لفتحو تكو لوري دفع مدني يعني واحد جبريل تناقصي امير موي وسيو سوي قطبو موي سخو سوت مولاي سو من فكونا بامباي جانغ سارو خصص با جا فارسلو معي لاكو جيسي بي بروم دارو دي فاج سيرن توبا ميغي تولو دي جانغ سورة القصص با سورة القصص با تولو wa axi haaruuna wa afsahu minni lisaanan fa arsilhu ma'i ridan yusaddiquni inni axaafu an yukadibuni bi sëñ Tuubaa di toll fii la borom Daaru Muxti di feeñ te lan la dëppool boobu Seydina Moussa yàlla da koo yónni taw làmmiñam léeru mu demande yàlla ngeen mu defal ko Haaruuna bu di yonente ma ànd ak moom mu ne ko kon yabalal Haaruuna mu ñëw ànd ak man tax moma gëna leer ay kaddu te damay bañ ñu weddi ma Haaruna bi bi señ sëñ Tuubaa di toll di jang lolu ci alluwa ji da Jibril taxaw ci kaw nako gan gii boo doon président de la république moy ce premier ministre nee bobo lolu loolu la tombeel moom feeñ sëriñ borom dal mo mo na Cheikh Bamba dal di dem fa néeg maam Faati jàngal ko fay sax amul jiyati ceri yi ñaar bu nek am sar nga xamne mu julli fay raq saxal ko ba patar kérok la Bamba sengé mbolém cër ya musula dox fa lu haram fa bari bi ya. borom daaru fegné yi Serigne Touba moo senge cëri borom daaru yépp moy juroom ñaari cëri doomu aadama yi nga xamné ci lay jatt borom daaru bu sa bëtam ma sa haram xaraam noppam mosu ko dégg làmmiñam mosu tudd ak tànk mosu ko dox mosu ko aw loxo mosu ko laal nga xamné ne nit di moye yalla yépp di def lu yalla Serigne Touba da ko senge ba benn cëru borom daaru du def lu ci borom loola moo tax mu ne kon keroog la Bamba senge mbooleem cër ya mosula dox fa lu xaraam fa bëri ya bi mu tollee ci dal jàng it euh, Serigne Touba moo ko dalal jàng moom maam Thierno Birahim Bamba ko jàngal alxuraan ak xam-xam jàng liggéey la boole ba am ndam nga xam ne kon Serigne bi ko jàngal alxuraanul karim ba mokkal am na bis Cheikh Massamba Diop Sam ca Pataar. mu nekkal Serigne Touba ci néeg borom Daaru Muxti ñëw di tari bi mu taree ba yeggal Serigne Touba na ko cerno alxuraan jii nga tari ni nga ko waxee noonu lañ ko bindee ca lawxul mahfuus nga xam ne nii alxuraan ji nga taree rek noonu la mel ci lawxul mahfuus kon loolu day wone melaw Serigne Touba ak melaw borom Daaru ba mu tollee ci jàng xam-xam it euh, moo ko jàngal xam-xam ci njàngaleen mu yéeme. sëñ ma bañ ji jaay nee na borom daaroo ko wax ne sëñ Tuubaa de téere bu mu ma sa jàngal ba mu xaaj danaan ma may naa la li ci des mbokk dimbalee ko mbokkam ndax dama laa yàkkamti borom daaru ne li ko sëñ Tuubaa jàngal li mu ko may lay gën a dégg ci li mu ko jàngal nga ko jàngalee xaaj bi may ko xaaj bi xaaj bi mu ko may lay gën a dégg mu ne kon loola melal woo xam ne borom daaru daf ko am bi mu ko jàngalee ba noppi nag ba takk ko muy mbërëm daf koo yabal ngir mu wër réew def ci sëñ moor Birama Jaxate booba dafa bëggoon mu jàng fa téere bu ñuy tudde Muxtasaru Cheikhul Xalil yabal na ko ci bay Xaadima Jaxate waaye borom daaru bi muy ñëw ci sëñ Mor Birama Jaxate bayit yi mu ëndaale mooy yéem sëñ Mor Birama ndax kuy jàng si ba noppi ëndaale yi bayit mel na ni borom daaru li mu bind bëriwul man li ci gisagul mooy bayit yi defoon ci fetto ak yi mu def ci sëñ Mor Birama Jaxate ak yi mooy maam Mor Jaara borom sax بيديو يبرم borom dër du ko tàmbalee salaamun kama miskin wa wirdin wa anbarin نفجه لعن هذا الأراضي جميعها كما تنتفي بالبطل ظلمة ليله فكم جاهل قد صار فحلا مبجلا وكم قامل قد فاق فضلا بفضله ألا أيها المقصود من كل موطن ويا من يسير الحمر بحرا لسيره أتاك غريب من بلاد بعيدة فلا تغفلن عن الغريب لجهله وكل لي أبا رحيما وناصحا فأبا هذا رب العرش أوي جسلا بام كو نيو نكو نيو نالا نيو بو داك خيتو فارفون بو ني يومي داك اغير تي كاو سوف دا نكو بري وانا كورير كو خموتون دار مو نيو نيو ديف كو فوري نيت نياغي لاي باي كو ويت مور غراما دي جيم يو ñëw naa nag man Thierno Ibrahima Fati ci yow nekk ku tumuraanke jóge fu sori waaye bu ma sàggane nag ngi sama réere dikk naa nag ci yow daf ma nag na nga doon ci man baay nekk ku ma yërëm ba mu yeggalee rek sëñ Mor Birama dana ko wallahi law kuntu dalat min xuduudikum ila mamatiya ma niltu bi maxsuud giñ naa ci yàlla de sama ndongal yi bu ma juumoon ba sama loxo bii laal sa lex bii li may sàkku àdduna ak alaaxira ko moo tax sëñ Moussa dana xam ngeen ne sëriñ bi yëbul xam ne bayit yi la indaale moom borom Daaru Muxti ba loolu amee it moom maam Thierno Serigne Touba yaral ko boppam am ci moom cër yoo xam ne it kenn fekk ko ci keroog bi Serigne moo rënd Serigne génne adduna way juróom defe naa lu nekk bare na luñ koy nattali waaye loolu borom Daaru tax la ci am Serigne Moussa Ka ne déglul ma wax la yow keroog miraas ma. waa Mbakke ak waa Kokki teew turaas ma keroog miraas ma bamba naa leen cerno mooy sama wàll bu amee mu doy gis ko tëral sëñ Tuubaa nag man yàlla doy na ma te doyloo naa ko maam cerno doy na ma may doy naa ko mbokk yi dangay déglu loolu li mu yéeme man yàlla doy na ma te doyloo naa ko maam Thierno doy na ma may doy naa ko bu wenn xeetu kokki baa wow Mbàkke taxaw fii naan sa Mbàkke dem ma Mbàkke maanaam Sëñ Tuubaa dane waa waa kokkeeg waa Mbàkke bu fi kenn taxaw di wax naan dem Mbàkke sàmm maanaam borom dëru du doon nga xam ne Sëñ Tuubaa lim doon ci sëñ Mor Sëri mooy jëmmi maam Thierno ak Kaamil maam Thierno yi lim doon ci Sëñ Tuubaa mooy jëmmi Sëñ Tuubaa maanaam nga xam ne kon. kii lii la donn sëñ Tuubaa la donn kii donnu maam Cerno donnu Kamil. mu ne keroog la Cerno yeesalaat njëbbal ga fedd li boole woon nga wëy ndaw keroog la jaay mbokk ga ak xam-xam ba jëndeeg murid saadix wala sàmmam nee bisu keroog fekk jébbalu woon na jaayante woon na. ca ndawam bàyyam jébbale woon ko waaye ba demee ba xàmmee it ca loola dafa jëlaat boppam joxaat ko Serigne Touba mu ne yeesal ak njébbalam jaay xam-xam ba ak lépp mu ne Mbàkke Kajoor la jëkke laaweewu sàkket di sàkketal Cheikh Bamba bul ko enquête at juróom la am ci duniyaa mu ne booba la wattu alxuraan bi la jëkke laaweewu sàkket di tërbiyew Serigne Touba moom borom Darou waaye dëkk bu Serigne Touba amit borom Darou fa jiitu sant bi Serigne wootee yoon jamono jafe ñuy xoqatal murid yi di leen dóor di leen génn Serigne dafa bàyyi Mbacké Kajoor sant Mbacké ba Mbacké ba war jafe la jafe-jafe yi metti Serigne bàyyi ko sant Darou Salaam def fa desasine wasasine muy ñaari at mu jël dëkk ba ak donga yi may commencé Cheikh Anta Gaawaan sañ ci Touba nag ci Wasasin di 1306 wala doon 1888 la sëñ Touba sañ ci Touba nga xam ne ci rajab la ko sañ muy feeñu jamono Cheikh Mahamadou Fadal gis nga waykat ba muy marsiya sëñ Fallu dafa wax ne euh, bis bi feeñee moo tolloo bis bi sëñ ci ajjuma la feeñ jamu wax wax ne nag ca ama Wasasin da feeñ fa Touba am na ju naan Daaru Salaam la booba ca a at la mbër ma génn daaru di sañ ci Touba ñëpp waaru waaye dëkk bu mu jiitu di ko sañ borom daaroo fay jiitu borom daaru nekk Touba sañ Touba fii jumaa ji nekk fi la këram nekkoon nga xam ne mbaarum ngeer la fi defoon ak dóor dóoru dóor akub dóor dóor sëñ Modou Mamoun ña nee na ma fanweer ak juróom-ñeent lañ woon sëñ Touba leen ñeent fukkeel sëñ Touba daan noddu sëñ Tubaay leqaam sëñ Tubaay jiite sikar sëñ bay noddu sëñ bay leqaam moo jiite sikar te biir mbaar mi sëñ Tubaay nekk kenn du yaru ñam dugg ko fi te sañ Tubaay du ko génne di laal waaye teewul fi la sëñ bi toog naan leen jumaa ji gën a rëy ci sawu jant fii lay nekk ëllëg foofu yi la toog naan leen fii ma toog yàlla attee jaam ñi ëllëg soli daal foofu yi la leen doon waxee bis ne leen yàlla xakiim suñu borom de bu ko neexoon doon jën di wopp di wér di am di ñàkk di bëgg lum du am te bu noppee nekk ëpp daf yi lañ koy denc foofu mu jox leen fi denc Amadou Bamba Xaadimu loolu foofu la amee woon fa Touba booba Cheikh Ibrahima Fall ci borom Darou Mouhty ma nga ca béréb boobale sëriñ bi nekk ci melo woowa moom maam Cheikh Ibrahim sax ca béréb boobee ci liggéey sax fa sax ab diir mu joge Touba mu joge foofu jumaa ji nekk mu jóge foofu sanc fii di Daaru Xudus bi mu sancee Daaru Xudus ab diir mu sanc Daaru Rahman Daaru Rahman mooy u Serigne Chouaïbou ñu koy wax Daaru Naar mu def ab diir sanc Daaru Minan muy kër Serigne Bachir di baagante di yendu fii di fanaani fii ba ci kooru bay sasin di 1312 sëñ Tuubaa dugg xalwa duggloo mag ñi xalwa sëñ Daaru Asan Njaay ci la bokkoon keroog bi sëñ Daaru génnee dana ko tukki bu yi laa gis bu yàgg bu metti waaye sëriñ bu neex bu bari koor bay sëñ Tuubaa dugg xalwa rasulullahi ñëw nuyu Cheikh Ahmadou Bamba ànd ak ahlu badri ci jàkkay Daarul Xuduus sëñ Tuubaa xemmeem Moustapha tàllal ko loxo ngir bëgg ko nuyu yonente bi na ko sama digganteeg yow toll na ni penkook sow buñ jëloon fekk suuf yi di ko nosi peri kurus soree naa nu toll noonu yow ak moom sëñ jaaji wat ci weeru koor di jaamu yàlla di not kanam ba ca laylatul xadr rasul lay dil nu nuyoog sëñ Tuubaa wóomi sëñ Tuubaa wóomi rasul lay sësoo bi laa xijaabin wala ma genn ki lay dox sa digg sëñ amul dara dox sa digg loolu yi ne la wa muy jàngale ak dox yi ma muy jàngale mooy jàngale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam joxe ca melo yu wóor yoo xam ne la muy jàngale mu diggéeg moom nag diggéeg bu rëy bii yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na ko Ahmadou Bamba mbooleem xuddaam yi ñi may liggéeyal ñëpp yaa ma ci gënal tey jii nag damaa am dara yu ma la indaaleel muy maqaamam xutbu zamaan jox la jamono nga moom ko yow Ahmadou Bamba ay sëñ Tuubaa na ko yonent bi tegal ko ne na ko dara ji gii nag ko amul ñeent fukki am du ko am waaye sopp gi ma la sopp ak bëgg gi ma a bëgg moo tax ma jël dara ji ji jox la ko yow Ahmadou Bamba sëñ Tuubaa na ko nangu nañ ko gërëm nañ la waaye am na lu ko dàqal loola moo di lan mooy na ñàpp ci yow taqoog yow ku la tudd tudd ma moo a gën a daraja jotu rasulullahi sallallahu sa wa sallam na ko gën bokk ci ñi faat na ndax li ko doon maye mooy tuur deret te laa ikraha fi diin xat tabayyana rushdu minal ghayy sëñ Tuubaa na ko man de loolu laa bëgg mu ne ko loolu jeex na ma ne sutu koo am nee na ba sëñ bi naagu ci ne di to jot yeneen bi na ko lu ñuy jaay la Ahmad waaye bu ma sañoon doo ci dugg gën ndax ku ca mos a dugg boo doxee ab diir buñ la dimbalewul waxuma la yeggale ko waaye damay am sëñ bi ne ko man de ruugi la sëkkul waaye sama jom sama ngor may na ma duñ ma yem dana ko yow ñu jël ñaar téeméeri nattu ak juróom-ñett fukk ak juróom tegal ko Serigne Touba bisu keroog yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu xaata ba tey moom ba su sunu borom dale ko li gën a néew ci daw li gën néew ci daw muy raf mu yimalo ñu jëkk ña mayoon naa ku yem bu la neexee yenn ku sonn bàyyi ku dàcc bàyyi ku mënatut a dem teg ci suuf yow nag Ahmadou boo xasee yenn yan bi bu leen dégg jamee képp boo gañee danaa la ala alal foo ànd sëñ Tuubaa ne ko saf leen ma jóor ma danaa ko jàmm yan bu rëy boobee la Cheikh Amadou Bamba yan bay sësin ci Suwaal mu wori takk génn dem Mbàkke bari sanc ko mois de mars mois de mars la le mars avril mai juin juillet suba convaincu convoqué AOF Mais Afrique occidentale française dajale des yooyu muy juróom-ñetti des la Côte d'Ivoire Burkina Faso Mali Sénégal Je dajale sëriñ des fi nekk convocation bu woowuñu sëñ Touba mois de juillet bi gouverneur général convoqué woowul Cheikh Amadou Ba da di signé asaka tay fay leen lii ji day am naan sàngara jigéen day moom boppam ba mu leen tëralee loolu ba noppi ñu tekkee ne Amadou Bamba kat yow tubaab bi dalaa laa xeeb daf laa yàq nu nga war a wuy si dégg na sa boote loolu ay tuuma la yu ñu teg si Amadou Bamba ngir noonu bu ko yàgg noonu. sëñ Tuba ca mois de août ba mu bind leetar jox ko maam Thierno bi rey borom Darou Mouhty mu toll ci fanweeri at mu ne ko Thierno kaay demal ma Ndar te fekk na boobu góor loolu mu dee am coxor gu bon ni bañ diine bañ yàlla bañ rasul bañ ko diine mu ne Thierno ñëwal demal ma man Thierno laxasaayu waykat bi ne moo jëkk a dem ndar te kër borom ndar billahi yaay gor Cheikh Ibra Fati ba Bamba soxlaa yow lan fa wóolu Bamba la wóolu Cheikh Ibra Fati maam Thierno Birahim gañaa yu ci mois de août doon ak wax mu laxasaayu wuti nar ngeen fekk Cheikh Amadou Bamba ndigal li mu ko digal keroog bi mu taxawee ci kanam gouverneur général moom borom Darou Mouhty na jëyi leetar bi mu yor tallal ko góor gouverneur palaat la tallal maam Thierno na ko teg ko fii borom Darou delloo loxoom na ko ni nga ma bañee ne laa la bañee waaye ka ma yónni woon sa loxo ak sama loxo la wax xooloo wii fi mosula rëkk mosula tiit du jaaxle ma see fu ko kalaame boro moo baax kooku mooy Cheikh Mouhamadou Fati borom Darou Mouhty góornóor jël leetar bi ne ko yónnee woon nañ ay soldat fekk 9 août 1895 di ajjuma ki tubaab yi mos a mujjee yeew ci péncam yeew nañ ko yi 4000 cartouches ne ba noppi Rasulullah ñëw na ko imsi wala tax sa daral Ahmadou waajal dem boo ragal lor yàlla seng na mu ne ñu dama ñax suñu ni mi na daral julli gee ba noppi moom Cheikh Khadim Thierno ngay dem ca yoon wa sëñ Tuba julli gee ba noppi dajale mbooloo mépp boobu bu ñuy séddalee waxtu timis ba julli fajar da Mbàkke bari fees dal Sidi Mouhamad doomi sëñ Tuubaa la Cheikh Amadou Lamine Cheikh Mamadou Moustapha juróom-ñeenti at sëñ Fallu boof sëñ Tuubaa di waxtaan ak ñoom ci gaa yu baax kaddu ga mujj ñoo kenn taxaw moom sëñ Tuubaa saa borom dafay indi yan bopp ko mas na jàkk ci gaa yi yi rumbul say wóom yan bopp yi man Ahmad dinaa ne ko dën kunul ba ñëpp di ko seen nef addimal fa borom daaru keroog bi waaye danañ def ci garaam ñu toog xaar bu subaa de bu ñëwut dëkk buñ ko fekk danañ taal dëkk ba danañ rey donga ya andi sëñ Tuuba benn muy dund baa ma ñàkk bakkan borom daaru ci fi tuure yi dafa wàcc ndar jaar ca Leclerc Leclerc moo nekkoon boobu góornóor bu Louga mer lay nekk góornóor bu ndar borom daaru wàcc fa keroog bi mu taxawee Leclerc di wax ak moom. mooy foofu sëñ bi di wax xorandoom yooyu sëñ Tuubaa borom dëru dafa taxaw di wax ñu jël ay soldat juróom benn soldat ñuy daw di xiixaan borom dëru ak di tiirey fetal ak di wax ko borom dëru muuñ ba demee ci archive nationale dana wax ne muuñum Cerno Ibra Fati moomu day yàgg quelque chose lan moo ko taxa a muuñ borom dëru gañaayu ñu di ko nëbbu doo ko làqatu mu boole tawte ba boole coono ba Sëriñ Tuubaa na ko woon bis dana ñëw biti bii sama kër gii di Mbàkke bari fi lay nekk sëñ bi julli tis suba ba noppi laajte borom dër ndax agsi ñu ne agsiwul bi sëñ bi génn jàkk ji borom dër na jaleñ Sëriñ Tuuba lëngal ko bopp ànd ak moom jëm ci kër gi jibril la cëpp seen diggante na ko tàbbi ci kër gi araam na Ahmadou Bamba dig bu jot na yére yi daa tilim daal laaj ndox mu doy loxo yu dëgër yu mën a fete Sëriñ Tuuba na takkal leen takkal ko alhamdulilah mu ne gees borom dëru teg ko loxo borom dëru nag ma ne de ma ma ma demee démb tàmbali net li sëñ Tuba tëpp tëppal ko na ko Cerno damaa yàkkante wu ma yàggal démb ca ngoon ca Louga ba nga taxawee ceddo ye ca detti mbeeru janj ye xoroloom yi doon dox sa tànk yi maa ngi koy siin man Ahmadou Bamba Cerno yoral ma donga yi foo ma leen mën a yoral ma donga yi foo ma leen mën a yorale ñu andil ko awnullahi naaru góor bi ñu taggal sëñ Tuba awnullahi la tudd malaa lun sooy lañ ca teg dégg nga daa weex tal ba mel ni wus déggal yi daa weex tal ba mel ni wus mu ne tegg tànkam ci biir ci déggal bi na tegg loxoom ci bopp Cheikh Moustapha Al Karim na tegg loxoom ci bopp Cheikh Modou Fadal dénk naa leen yàlla seen bàyyi Thierno na gees borom daaru na ko Thierno mu ne ko Mbacke mu ne ko rikki na nga muñ rikki na nga gore rikki na nga am jom ana lam asab ila li xidmati umti biha wa silaahuha fii hada safar faqat damay dem bi wuti loo xam ne toog da ko maye gañaayu rek la ko xañoon gaañee ma koy may maa ngi dem yàlla bu ma ko dénkoon mbattu xam sax du ma xel daal ne walañ wane ginnaaw war a awnul laahi yàlla yónni Jibril la ko ne Ahmadu lu mu bëgg mu ne ko bëgg naa lépp mu ne ko may naa la lépp donc ngay laxasaayu maam Thierno Birahim doomi Sëñ Tuubaa yi laxasu maam Thierno Birahim Cheikh Moustapha Karim Cheikh Amadou Fadal Sidi Mouhamad soxna Fatou Dieng ñëpp laxasu borom dër di ko gañaayu kenn ku laxasaayu ci maam bi ray borom dëru na càkk Serigne Touba xamna ne kam yaakar kay sëriñam kay leppam moy dem jabor gi mom la ko baye kenn xamul foy jëm mu ne de na abdir mom mam Cerno fatali ko baat ko Serigne Touba waxo Serigne Touba gañaa yu di wéy moom Cheikh Ibra Khadim borom dar Muxti fàttali ko Cheikh Khadim baye ko jabor gi dara sul borom dëru des Serigne Touba di dem ta Serigne Moussa Ka ne na misaalum tubaab bee tax nu gem Bamba gem ko wir te noo raw ci ak gont noo fiiroog borom Touba amul kuy dajeeg nasaraan bi juróom-ñaari xat yu mag te yàqul tawxiidam ku la ñëw Serigne Touba bu ma sa dajeeg nasaraan bi rek rek nañ sa tawxiid Serigne a xaw nu laa ji wane ginnaaw bàyyi njaboot gi ak na Thierno bi ay borom Daaru Muxti daal di des bu ñu demee ci waxee Abdoulahi ne. وحين أسمع القديم الصفرا وسيد كل سيد في جوف الورى أبوها يدبر الفهيمة أموره أقاه إبراهيم فوضح الأمر على محل موفقا في شده وحيه بس إن بيجاني هاي الجم لأن تجمع لنا إنك تير بربو اللي خمنة بوجت ربو يبرن تجاري نمو يجاو فالفرا سن جبادة الله يكون بيكون سرمدا وجه المسير يدا جاو فالفرا للورا مثل المعاريمي أبو التالي من هنا بقو سن جبادة ربي لأن جرم ربي بقو سن جبادة ربي جرم إبراهيم ربي بأيه njaboot gi mu dib nawet borom dëru ne ci tool yi war ko battali war a déqi war a góob ceddo yi bari ba guddi ñu doq jur gi sàmmee ko tool yi borom dëru moxti mbakki bari nag jur gi sàmm sàmm yi yabal seeni jur ñu lekk tool yi tool yi jeex tat borom dëru xëy sa bagage lii mu def ko ci mbaam lii mu def ko ci loo lii mu def ko ci nag wane ginnaaw bi borom dëru di génn lañ taal këru mbakki bari borom dëru bëgg a gestu xel mi dem ci na nga muñ na nga goree na nga am jom fan la borom dëru jëm sëñ Tuubaa dana ko yoral ma njaboot gi foo ma leen ma ñëwee bu Tuubaa jàppalee moo ma gënal bu jàppaliwul moo ko neex yàlla lekk leen bindu ordre kenn du dëkk Tuubaa moo waral sëñ Tuubaa daan xusuur yi xal la wala lu am ni tafaaraxat li ma dexi léegi am xul ma di yu xas yi samay kër gent na gisatuma sama njaboot amatuma kenn lu ma ko yóbbee rasulullah la bëgg a solal mbubb te lu ma natt mu gàtt li ma tax di dox mooy lan basiir yi kaw ni abduhu xaatima nabi wa amnul baraya lil ilahi yasiru maa ngi dem kenn du ma wittili rafiqi kitabullah wal mustafa nabi wa ashabuhu fi lbahri xiina abu sëñ Tuba képp rek doom ànd moom sëñ Tuba borom daru yor njaboot jëm ñu ne ko du fi jàpp nañ sëñ Tuubaa te boo ca toppee yow la ñuy jàpp mu yónnee loog ñoom moom Cheikh Ibrahima Fati borom Darou Mouhty comme ne naa fa dal nga ne bu fa dal fan lañ ko tegtal guy ngura ak bay dee la ku fa dëkk faat borom daru dëkk fa njabootu sëñ Tuubaa di tawat sëñ Mahamadou yi dali génn àdduna sëñ Modou Moussa tëdd tawat sëñ Fallou tëdd tawat Cheikh Mahamadou Lamine Bara tëdd tawat booba sëñ Tuubaa dafay yegg ci di wax ne just bara al ankabut ahasiba an-nas an yutruku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladina min qablihim بابا سين بك يحنا في رسول الله بني ما حد محبة المختار سيدنا حب المغانية والأهلين والولدة دمي وأهلي وأولادي في دائم له عبد القديم له مسكنا لي سندا بقول ما دوم بقول توما ألم بقول توما إتالي بقول توما ترى رسول الله يدك يكسر مقال يا الله نقدنا على نتو ترى تام جمعتو سنتي بعك برم دارو تيم لين كيسو سنتي بعك كيسو كم رونغان جو سنتي كمجول نيارا دامنا يا الله وسما كيلي فوق باقي نرينيو ما في الله خن جبركي نانيك سونغ فريسة سانداي بابا نيك مودا أوبالي مودا مودا baa ma ñàkk man sa bopp jarno bu sëñ bi ñëw mukk doomi sëñ bi kenn faatu naa ñàkk sama bakkan wala bakkanu Moodu aw balla mii baa ma ñàkk bakkanu soxna Fatou si sama ndey bi sëñ Tuubaa yëgee ne sëñ Moodu Mustafaa dafa tawat sëñ Fallu daa tawat sëñ Baara daa tawat sëñ Tuubaa ñaanul ngir ñëwee da ne Mouhamadul Moustapha bi yeddi Rasulullah fal yaqadil daa macha bi Moodu Moustapha nga ca loxo yonent ba da tawat ji mën na ko am na ko def Mouhamadul Fadal bi yeddi laa falloo nga ca loxo yàlla Mouhamadul Lamine bi yeddil Quraan yi Baara nga ca loxo alquran da tawat ji mën na ko def borom daru sax foofu le di boori wiir ak tumuranke jamono di jafe Abdoulaye Salim nee na te ab naar la de nee na booba ka rabbal muridina wa aqlal banina nujabal athiya tilka sinine la jamono jay jaxase jaxasoo borom daru jàngal na doomi seen Tuubaa yi yar na murid yi te yooyu ak ci tumuranke coonam yi di bàyyi ba guddi jot ñu jël si maam Thierno di ko yóbbu ci àll ba di rëppatal fas yi di tiire bari fasal yi ñu ne soxna Faye Issa doo wax ci sa doom ji nga xam ne tubaab bi dañ koy dugg yóbbu mu ne déedéet ka ko yar ku mu yar doo ñàkk fi. naam jëm xaalis ah, borom dër dina sëmm rek bu ñu ko jiitalee teg fi te lii ko diine di mu ne teg du leen faale. tubaab yi duñ yem sa loolu pexe mu man ngir bëgg découragé loo Cheikh Ibra Fati ñu ko def motax borom xam-xam yu reuy yi nga xam ne dañoo ñàkk ki ñaan demal nga sétti ko melni Cheikh ibrahim Diop al-Mashari dafa wax ikhwanu shaykhi qadim al Mustafa kabra lakinahu bi ittifaqi akbar al kubara Cheikh Ibrahima Diop Masar nee na sëñ Tuba amul como ay ngand la am waaye ngand yemmaasee sen ci nooy ponkal bi Cheikh Ibrahima Diop nee na sëñ Tuba amul como ponkal la waaye nee na ceer ma ne gànn bi mu ne fala taxul wala taxsa manaqibuhu bi mantaqin aw bi aqlamin li tan xasiran jëlal garab yi def ko ay kalima jëlal géej yi def ko ay daa di sëpp ngir bëgg a bind ceeb ngëneel li maam Ceerno nee na sa daa dana jeex say xëy ba jeex te doo jot benn ceebam koy fàtte mu ne fardum lahu mislu fal hawsan lil kilami trois nee na genn ki mu ci mën a représenté ak peuple nee na mun jëloon Sénégal gépp ñu ne mooy peuple bi ñu ne Thierno Ibrahima Fati bu ñu leen tegee ci balance teg Thierno Ibrahima Fati ci balance Thierno wat ngeen nee na ab jant la moo leen tiim dina leer dina sori Cheikh Ibrahima Dior Machak mu ne mooy koo xam ne ملوك أحيا الهدى في زمان قد بدع بدع شنيعة فيه والإسلام قد نصرها جامعنا بمي فين يلدك أخو غلير لأن بابا بلا موت شاور yemu ci tubaab yi duñ ci bay yi duñ tayyi ci seen tubaab ba xëy bis gas ak kam bu mu xóot ñu mërmëral ko teg cay bant na sëñ tubaab bi rek bi neex naa toog sëñ tubaab daa bind de a dama rabbiya maa od yu xafar li darari yi wa ni am nan kafar sëñ bi ma wax ci kàmb bi tubaab yi gaaw maasale sëñ tubaab def na ca ay bis nee na am sëtu jaxate li yàlla ne kullu nafsin daayiqatil mawt bakkan bu mus dund dana mus dee ca kàmb googee laa ko muse laa fa nekk lépp maa nga bar sax daa faa naroon a teggee dem aljana waaye comme dañuy ne tubaab yi seen i pexe dafa jëy nee ku ñëw fekk ma tiim ma naa la dimbale ma ne loo ñëwee sa ndigal wala ndigalul yàlla nga ne saa ndigal mën a dellu sa yitte ba yàgg am ko jàpp ci mbagam na ko sebet ba mu génn gàmm gi mun na ko doxal ñii dañ lay yàqal nee na ba mu gëstoo mu soxla ma Maryama Buso moo tax Abdoulaye Sène ibnu xam da wax ne naarun tajjatahu tariha biha ila munajjatan lillahi fi naar tubaab yi bind leetar nag jox ko Cheikh Sidiye ñu traduire ko yónnee ko Maam Mor Jaara yéen ko Maam Cerno Birahim lu ñu la wax mooy sëñ Tuubaa génn na adduna adduna la borom daaru julli si ci timis ci jàkka ji teel a ñëw fekk fi ñaari gars yëgu nañ ceerno nga ci jàkka ji ñu toog ba yàgg kenn ki ne yëg nga xibaar bi xew jox ma duubal ndox ma tàngal ma nettali la xibaar mu ne ko ab mu ne ko tàngal de moom duubal nekk lay jar waxal ma dégg mu ne ko yëgal ne sëñ Tuubaa des na ci géej sëriñu ceerno bi faatu na ci bokk lay toog ci jàkka ji di ko wax mu ne ko kon nu ceerno yi def mu ne ko day dem kër nijaayam jël sëñ Mourou Sow seen kii bàyyi dem jox leen seen xoolal ji wax borom dëru bu doon jaaxle loolu dana ko doy jaaxle Serigne Moustapha moom Serigne Saliou nee na ki gën a gëm sëñ Touba mooy soxna Fatou Issa ndax moo réglé lii keroog keroog bi borom dëru nekkee ci xaal di jàng alxuraan ca kaw ñu ñëw ne soxna Fatou Issa de borom dëru fan yii daal tëju te nu nguut a ak kenn mu ñëw jàpp ci mbagg mi ne ko lu xew mu ne ko dañ ne sa waa ji dee fi nekkatu mu ne ko acam déedéet ñu ko tawatam jooju dal nga xam ne daa am tawat ju daan daaneel sëñ bi aal koy dikkal ne maa ko toggal laa xam boobu ñii ne wopp la ko jox mu ne keroog da ma loo gën a bëgg soxna Fati sama nday ne mu ne ko damaa ragal dee lool te bëgg malaaka yi ci bàmmeel ma ragal leen mu ne ko maa lay nungu ci bàmmeel mu ne ko sa sa waa joo jëlee moo ma waxoon danaa la def ci bàmmeel te faatoo gu ma lu wax ma am. xoqtal yooyu ñu koy xoqtal ak ñenn ñi di reetaan borom daaru boole dëggal yëmu ci tubaab bi ñetti yoon taal na ko kër borom daaru moo ci taal kër gi mu ne tur jeex tàkk mu tëdd ak njabootu suñ tubaab gi ci bitti Serigne Saliou Mbacké nee na sëñ Xalil nee na ma man mii la ko wax daan na ma damaa ñëw mu ne waa ji gay joxal Xalil mi am néeg daan na ko yow sax man nga fanaan ci sax ak sa maam Thierno Youlou Fati da daan lalal njabootu suñ tubaab gi ci sax ba mu jekk tëdd ci bunt bi bu tubaab bi naan di ko taal mu boole jaaxle. boole melo yoo xam ne mënoo su ko si ko borom jaru di muñ loolu boole koog njàmbaaram boole koog ngoram boole koog jomam boole koog dogoom boo xam ne kenn du ko ci fekk moom Cheikh Ibrahim Serigne Touba nekk samaani yaxi jagin juróom-ñetti at yu manqué ay weer ci géej ba 11 novembre Serigne Touba door a ñibbisi tubaab bi nee na booba Serigne Touba dafa mel ni xalu sawar ci seen i buñ ko ŋàppee dana lakk buñ ko tegee mu mu tal daay gi leen wane ñu ne nañ ko yóbbu Madagascar ñu ne nañ ko yóbbu mu ñibbi tubaab bi ba wago bato bi def seen tubaab bi ñu ko indi ay bagage ci nekk naruñu ko wala dañoo ñëw ci waaxu Moussa Chiri bato bi ne sëmm taxaw seen tubaab waxut daay ñëw maa ngi yëgu ñu ne daay ñëw te teewul teef nañ seen tubaab maam Saliou Fall ak Cheikh Ibra Fall mooy dox ba yàgg tànk yi dexasoo ci wax bi mu ne ah doom ndax fii làmbinaas nekk maam Saliou Fall la ko jëkk moom jox ko Cheikh Ibrahima Fall Cheikh Ibrahima Fall ba mu fa wàccee sëñ Touba mu jox ko Cheikh am Cheikh Amadou Bamba sëñ Touba may ko maam Cheikh Anta Gaawaan sëñ Balla Coro sëñ Cheikh Anta Gaawaan bàyyee ko wàlla sëñ Balla Coro door ko moom jaay ko fonction publique mais fii pare président de la République nekk maam Saliou Fall day dox ci wax ba yàgg tànk yi yaxasoo mu ne doom xoolal leen ba xam saa waa ji daa ñëw ñu dem dikki ci wax bi lan na bato bii taxaw nee na ci la sëñ Touba am ku dul sëñ Bamba mënoo jaxase sama tànk yi sama tànk yi jaxasoo rek daa xam ne sëñ Bamba nga ci kaw suuf. bato bi ne sama mu taxaw mag ñi seen put yi wow koŋ mënuñoo wanaasu mënuñoo toog mënuñoo taxaw kenn ku ne naan nan la ñëwee juróom-ñetti at ba cicatrice la indi moom moom ndax mi ngi dund. moo tax moom andi wutul laago ban cëre manqué ci moom bato bi ne sëmm rek mag ñi mënuñu toog mënuñu taxaw da yàgg capitaine bi da këccee bunt bi dox ba xaajal na oye Cheikh Anta ñu ne Cheikh Anta kaay wuyu sëñ Tuubaa Cheikh Anta jóg luuf tànk yi damm ba ak escalier raam bi mu ne tegg tànkam jàkkaaru sëñ Tuubaa mu ne ko xinnet na ko Cheikh mu ne ko Mbàkke mu ne ko dem naa ba ñëw nee na bis boobu leen tax a ba di mu ne ko Cheikh yàlla bég na de rasulay da ngeen bég Cheikh ah topp leen sama muur dem naa ba ñëw defuma lu ñaaw waxuma lu ñaaw waaye Cheikh mu ne ko Mbacke mu ne ko li des ci adduna lu des ci adduna lu fi waay amati borom lu tox loxo lu tuur lii moo ko liggéey siman mo hasal wara turon fi yedey ko fi yedey lahu mam mamu waaye xataam lu fi waay amati na xam ne borom loxo lu tuur lii moo ko liggéey muy Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasul teewul ba mu ñibbisee muy bis bii nga xam ne tey dem na ba nar woolu maam Thierno Birahim da ko sant borom deru warga wi sëñ Touba mujjé warga ca Mbacke bari sax Cheikh Ibrahima Fall yebbal na Serigne Touba la ca desoon yebbal ko mbuum ak baraada ya kaas Serigne Touba nako ko Thierno nako ne ko Mbacke mu ne ko waat naa wàcc naa wàccaale naa ku ma yaakaar waaye bu fekkoon ne yaa dem yow ci geej gi man ma dess ndax li nga man ni ko mané dina ko ni mané dara yakku ci ngor ak jom ak fit la borom daaru seeree lépp ba Serigne Touba egg ci mata taqa aynayka ala hadi hurufata yaqan bana katiba raadi nank rida la sotta baadu saa yoo gisee sama lettre bi yow Thierno xamal ne man Ahmadou Bamba gërëm naa la ba faw te dutuma la ngàññi maa ngi lay sax ci yàlla lu la sa kem yëpp di ñëwee adduna ak alaxir Serigne Touba yegg ci nag al muridu al aqur ra'iq murid sadiq dëkk mooy Cerno Ibra Fati sëñ Tuubaa nee na tëll ci njëriñ gim daan na Cerno Ibra Fati mooy gis texe Cerno Ibra Fati mooy gis texe Sëriñ Tuubaa sax ci am melawoo ba ci ne ko ayyuhal masboo dama ne ku ne nee nañ bëgg nga sëñ Tuubaa bëgg nga nii sëñ Tuubaa diw daa bëgg sëñ Tuubaa waaye sëñ Tuubaa moo bindal boppam ne ayyuhal masboo bi xubbinaa yow Cerno mbëggeel bu doon paaka yow lañ ci rendi bëgg ma bu doon paaka yow lañ ci rendi te ku ñu rendi ci bëgg ma texee de duutu texee de moo tax bindkat bi dana ko hadayta aqafta sadaqta sharaqta fa maa fi xubbi ahmadu cheikh yi man yu daal di bu di lim ku bëgg sëñ Tuubaa kenn du la dendale kenn yow Cerno Ibra Faty kon yal na ko yàlla fayal te dolli ñaan Cheikh Maodo Mokhtar sëñ Xaadim Gueye agsi na léegi te moom la ñu doon téyel jataay bi ngir ànd koog moom di leen gërëm sëñ Mahamadul Maxtaar Diop noo ngi lay sant ni nga organisé jataay bi doxee ko ni sunu xol sedd na ci sëriñ siid yi jërëjëf Baye Sumbul jërëjëf sëñ Ahmadul Maxtaar waxtaan ak